fi ñuy répété la ñuy fekk du ñu sànni ay xeer mais ñun duñ leen topp ndax loolu day deccal guerre sénégalais dafa mel noonu tàmm say daal dagg doo dem mais ba baa àddina ak kuy jëf du ñu yem. ndax man asalaamaaleykum mbokki jullit ñoo ngi leen di nuyu commencé ko ci turu bi te xam ne aar boo ci nekkee dégg na ko mu ñaale lu ne danga ko dégg waaye bindal sa ginnaaw bul faale boo ci teddee sa noonu yi ñooy jaaxle mais sa soppe yi nekkoon sa ginnaaw ñooy far baaxle. kon groupe jàmm ñoo ngi leen di ñaanal fi ngeen bëgg a jëm yàlla na leen fa yalla aggal ñoo ngi dégg ñu naan dinañ ëmbalante suñu biir sama leen ak kàddu bu ñu fi gis ab diir donte wax ñu ñaaw ñoo ko jël diko tek suñu der na leen ko biñ te xamna artiste du may ay artiste lañu te artiste lañu te kuy artiste lañu nit ñi nak dañu tàmm booy jël dara si da nga am baatu ginnaaw te kuy avancer ku nekk da nga dégg lu nekk mais lu ñu dégg lu nekk dañuy muñu solidarité mais waaw solidarité daal dañoo war di dimbalante ndax dimbalante dafa am solo moo tax solidarité fi ñu ko teg du palaasam na am ku ñëw taxaw wax ñu xalaatam yàlla sunu borom dafa bind wutale ñii dañoo am ñii ñàkk nañu gëm yàlla mi ñu sàkk borom alal yaa ngi dimbalante ñun néew di doole ji fi jëm àdduna danoo tanante nekkul na yàlla lañu gëm nañu dundal solidarité dañoo war di dimbalante ndax àdduna ñëpp yemuñu dimbalante la yalla wax ku leen ko waxul da di nax mu wax al muslimu akul muslim manam julit julit moy mbokam ya rabbi fi dar salam ma gis ko xamne bu agne du reer bu réeree du ndekki ndeysaan ma gis ko xamne ne seeni famille ñëpp a solidarité lu ñuy limité dimbalante moñu war donte do am jarul ngay xass ni di xép nan ko lu bol li nga solo wax ju jëfe ko rek moo ci am solo Sénégal di sunu gaal te ñun ñëpp ñoo ngi ci biir gaal gi nga la waay bu ko kenn xar te bu ko kenn suuxal nañ leen ko joow ci géeju mu baax ndax mu teere ji ci tefesu jàmm jàmm loolu laa lay may ci solidarité. bëgg <laughs>